asalaamaaleykum. sëñ bi naa def. jaar nañ leen maa yebal fii lu waay dal mun ba ne Adama rek mënuñ ko fee fekk. effectivement fii booy. booy lan ngay déggee mënoo dugal li sa poos ba ma wax ak kii. kii kër ga mënatuñu am accès moom foo ko fekk mooy téléphone am foo ko fekk mu ngi Facebook fay nañu wifi bi kër ga mais foo ko jaar mun na am fu muy paas baara baara booy problème mun mënuñoo am ak kenn mënu koo yónni ba mu faala la kenn mënu waxam fu mu toll foo ko fekk mu tëdd téléphone connexion moo ko doole dañoo xamul lii lan la lan lañ ci moom ñun mu wax nañ ba u booy mënatul jàng amatul temps si lenn lu téléphone am bi loo ci maanaam su ma déggee sa biir wax. waaw moom daa daa am problème internet. exactement te marché sur ma langue problème boobu la am fi nga war a yegg waaw kay. sa téléphone sa poche ba ñu wax ba pare. a yegg si. yaa ngi tabarkalla macha allah fii faj fi ku ne xanaa nga dee te boo deewee sax nañ ñëw fexe ci yow ay pexe nit dee na fi ñëw fii am na fi ñeent fan jug doxi soxlaam nit ñëw na fi indi jàngoro bu boo xam ne yëm na ñëpp ñu faj ko nit ñëw na fi damm ñu faj ko biiram di dem ak a dikk ñu faj ko dama ne lii <laughs> lii dara jëlal place jël leen place non yow boo yow ni taxul ni ñëwal ni tonton baara laa tudd non laax tonton baara booy waxuma la prénom de non laax gay merci gay merci gay noo tudd baara baara foo man Dakar booy Dakar booy yow laa xam ne yaa ngi Dakar fan nga ne ci Dakar fan nga dëkk ci Dakar. man Mermoz laa dëkk. mooy lan mooy sa plat préféré. booy yow laa xam ne. man crocodile bu vert laa yëg. booy fii sa morom nekk fi lan mooy sa plat préféré. domada. artiste préféré. booy yow la mooy sa kan mooy sa artiste préféré. Pawlish. Pawlish Mbaye. borom feeraay ah. ñaari góor war sangu bokk. 44. si sekk maa ngi foofu noonu ci groupe boobu noonu. famille love. Oh, famille wuy wuy wuy ma. wuy ma baax na. léegi yow xam naa ne ñu nooyee léegi. yow ñëw appel si dugub dafa jàpp si. topp

neen bu xëyee dina dugg WhatsApp. dugg Facebook. dugg Messenger. dugg Instagram. dugg foofu nga xam ne mooy Snapchat. moom nee nañu bokkoon na ci 44 group WhatsApp. en plus nee plat préféré am ah, moom artiste euh, artiste préféré am euh, Pawlish Mbaye la. moom voilà. léegi moom. Euh, koy moom. suñu waxtaanee ci biir wéy moom dañu ne ñoo xam ngi noonu. docteur kii bu fekkee am nga ci pexe nag. te encaissé naa la ba pare ah. waaw encaissé nga maa ngi lay appelé léegi. ok merci. jërëjëf. waay waay waay waay loolu. waay mu ngi ci moom. waay waay waay. du am problème du am benn ak moom moom yàlla na la yàlla jàppale parce que. lii la bëgg a affaire bi la ko jàpp. rek parce que xam nga nag li ma mën a jàpp moom yi téléphone yi ñor empreinte bi loxo la bi loxo la tous les détails loxo la kii nu def. kii alma téléphone. E, alma alma téléphone. damay vocal xaaral. kii. mooy kaa kaa bi kii bi kaa. may ma eh dama lay noqe de am. fii hôpital la fii dafa am hôpital bi nekkul ay whatsapp ak voilà. fa toog fii nekk na lay bool ma ki bés may rek. bi bu dinosaure la de piqûre dinosaure la moo la ko ñamalee moom dootoo clavier moom di nga di muur bi moom li nga réglé moom normal parce que nii moom comme Ndakaaru moom dinosaure fi ne ay dragon may ma rek moom laa lalee bii moom ci cartonu sëñ bi witti dina baax la dina baax yal na yàlla def ma la ko bu ma la ko duutalee <laughs> mel ni bulu fa bi de. sa ma jottali sama téléphone. mais da ngay def nag et puis groupe yaa may message. fii dañu lay faj dañu lay faj normal nga mën a reculer parce que da nga am feebar da nga am feebar ah. lan moo waral. feebar bu métti nga am tëral noonu rek ca wala. booy boo leen day cuuj bu mu yëgee dañuy naaw. waay. na yàlla def jàmm rek boo yi nga xamante ni seen loxo yi léegi xëyatuñu góorgóorlu kibit kibit kabaj kabaj kibit kibit kabaj sa seema dañu koy ubbi ma bëgg rek ñu kuy liggéey siin doof eh góor ba nag bul nekk di jooy comme xale eh. eh, eh. waaw mais lii la la nii. waaw liggéey bi. ni nga ko mujjee fajee. waaw parce que booy bi dafa commencé woon a yàqu dafa doon am cholestérol. cholestérol waaw mais lii dina ko tere collecté lii waaw nii day tax dootul ko nag parce que dama jël euh, empreinte fu mu ko doon teg dama ko dagg parce que boo ko daggul day gën a bës téléphone am di manipuler te dafa bëree aar loo ko def jar loo ko def jar nii kay moom di jaay euh, da doon yàqu de mais saa yi li ñu def yëpp ngay continuer wa di wax mais nag affaire bay des quoi parce que booy ram bi mu ram bi mu connecté boppam moom la booleeg ak téléphone am moom ramam dafa bari plus loolu loolu moo tax fi ne gaz bi rek mooy dox nii. booy dafa soudir xam nga ministre métal gi muy soudiree noonu la ci téléphone booy dafa téléphonique dafa dem ba commencé woon ay fil dafa ay fil yoo xam dama ko dindi ci mbàq parce que commencé woon na am ay ay commencé rajan yoo xamante ma <laughs> non non kay mais mais day bàyyi nag. day bàyyi fi ne euh, le temps que yi di wér. day ànd ak empreinte bi commencé suul ah. mais ci bagage chinois yi la doon bokk. Ah. da doon li ma ci góorgóorlu nii kay moom. Euh, euh, fu mu toll nii kay def nga de. ñu dem ñu dem ñu dem. waaw jërëjëf góorgóorlu ko <laughs> eh, de ko sebeel nii. ko sebe na koy wàcce mu koy na ah kon moom moom daal nii rek nga ko mën a fajee. waaw. nii rek nga ko am beneen solution. moo liggéey fi mu ne nii day toll foo xamante ni faaw nga demee ci fit ak ak njàmbaar parce que bu ma ko accéléré wul ne xaw ma lu may bés booy bi kat nii lay def di whatsapp di def nii ba pare dafa bëgg Facebook booy bi daa bëgg Facebook dafa demoon am ay RAM commencé mel ni ordinateur. kon baax moom man ko dama jomee. au dafa am presse kon. ah Yagoyek. corniche hippodrome ñoo ma kon ah ah pig bi gudd na de da ngay tàkk defal naa ko booy. non non non bàyyil jooy yi bàyyil jooy yi mais nu mu demee foofu na la demee. ouais. mais moom moo jël loxoom jamal la boppam nii. moo jamal boppam affaire bi. utul machine utul dara. dafa jël bi rek na gis nga booy ko bëri mu bëri. mooy c'est ça c'est grave c'est grave. xaw a ségi doon da gaaw. wéy wéy maa ngi jégalu wéy kii dama koy damay opéré. non dama koy opéré non dama koy opéré sa bopp bi il faut ma opéré parce que fii dafa am benn uh, sa anis bi kii bi la toj. sa bàggu voyant bi dafa toj dafa toj il faut ma opéré ko. te xoolal dé dugal ni ci salle bi nii dugal salle bi moo au fond au fond demal dugal foofu. ci la doon dee am violence ñu ngi bari de. mais defal naa waaw. yow da ngaa bëgg a jël risque da ngaa bëgg a jël risque. opéré ko. bopp bi dama koy opéré non dama koy opéré ma xar ko comme ni ñuy xaree. catastrophe catastrophe yaa ngi def erreur. erreur ko bàyyi mu dem xooli ne. fii lu fi dugg dañ koy faj. kii bopp bi faaw ma xar ko comme xaal bu weexee. xool ah. nit dee na fi ñëw fi nga faj ko ba mu dem. waaw boobu ay la looloo ngi noonu naa ba mu dund. kii tamit damay risqué damay xar bopp bi xool ba xam lu ci yàqu bu ma ko mënul defar ma jox ko hôpital yi ma loolu dama la ah, man de fii nii ma. amoo ci benn conseil. non non man fekk ma fi la. lu yàlla ne la. merci beaucoup.